من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد بشر الحمد لله رحمية تي السلام عليكم من شيخ الحمد لله فايدة يا بارس بل هو كالياقوت بين الحجر bisimilah ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi gërëm maam Baay comme niñ ko baaxoo di def ci ëttu Jamiyatu Ansaaru Din bu Italie ci jiital suñu président Mohamed Diop yaakaar naa du fi gan ndax lii def nañ ko fi defati ko fi mooy tasaare xam-xam ci façon bu ñu nekk euh, tey nag suñ façon bi koy defee incha allah bu ñu ci yàlla dimbalee mooy suñ mbokk suñ sëriñ Cheikh Ahmed Boucar Niang mi ngeen xam defoon ko fi defaat ko fi lii sët ci Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass di sët ci sunu maam Ahmad Boucar Niang boroom xam-xam buñ xam buñ miin ci pays bi eh, mu bokk ci ñi nga xam ne actuellement pays bi mi ngi leen di tiitaroo leen ndamoo seen guddi seen bëccëg yépp jàng ak jàngale la tasaare di fi seen maam bàyyi woon defoon nañ ko ñu ngi koy defaat fii incha allahu tey jii ci rowaatu euh, tolloog 19 ci weeru novembre 2016 fii ci rowaatu ci région Brescia ci Italie mbokki taalibe yi ñëpp ñoo toogoon pour mu waxtaanal ñu waxtaan wi nag ci méthode bi ñu ko nar a defee mooy sun sëriñ sun maam sun lépp sun ñëpp bokk na ci yi muy gën a tasaaree xam-xam muy mbind ci mbindam nag ci lañ bëgg a def tey waxtaan bi sun maam cheikh al islam El Hadj Ibrahima ngeen xam ci téereem boobu ñuy wax Rihla Konakri mu bindoon ko ci 1947 buñ doon lim téere yi duñ wax ne moom la njëkk a taalif buñ doon lim rexla yi duñ wax ne moom la njëkk a bind ndax ci ñetteeli rexla la war a toll téere yu bëree jiitu itam kon donc fekk na boobu muy bindkat bu mag ba lu mu bind kenn du ci teg ca ba mu ko bindee ba léegi amul masque guñ ci war a soppi jamono ba mu koy bind lañ bëgg sëñ bi waxtaanal ñu ci la taxoon mu bind ko jamono booba lan la pays bi doon dund ñan ñoo doon pays bi eh, xam naa ñu koy eh, jox parole bi wax ko mu la bàyyi waxoon na ni tee ñoo dellu Koosi waa ñun waa jamiyatu ansaar din bu Italie itam te tee ñoo dellu ci reex la Conakry ba xam luñ fay jëlee luñ fay jariñ sëriñ bi ñëpp ngi toog dégloo fa marxaban bi ko الحمد لله الحمد للحمد المطلق والصلاة والسلام على صاحب المعراج سيدنا محمد الداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة فأتي لنا بظفري بولمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دفعي نك تجور مك تيكي من pour تيو في تي إتالي وقتانك أي صوبة جيما روي روي روي لو رك موني تي دوغل أو تي تانكي سوني باي أستاذ إبراهيم محمود يومي خمنا فرينا تيري بي موي رحلة كوناكيريه ci tukki bo xamne tukki bu am solo la ci carrière Cheikh Ibrahim amna tuba bu ñuy wax Rudiger Sisman daf ne Rihla konakri moy apogée ci carrière yi Baye maanaam ci la mbir yi gëna maté mom moom seetloom rek la wax waaye Baye mbiram mom tambalé mak mujjé yëpp ben lañ waye daf ci tukki mo xamne bo setlo ci taarix dafay mel ni Baye yag nako préparer ndax gisna 1938 muy wax ak Sukayrij ci xalaat dem Mali muy 7 rajab 1357 ci la ko Sukayrij bind lettre tontu ko Sukayrij ne ko dafa am warit bu jige ci pays yàlla bi rot ci xolam mu ne ko bum dem nga gis ni gaa yi yàlla yi ni yeme rek harfu dal la qasida bu gudd mu nan ko wala tusafir li khayin fa huwa khawiyatun min munsafin wa biha al ixwaanu qad faqidu وإن تريد سفرا صاف إلى جهة فيها انتفاع لإخوان بك اتحدوا bul dem xaay xaay ma nga wéet ci waaju sell te yow ñu sell nga soxla ñu soxla yàlla boo bëggee tukki daal jëmal ci bor boo xam ne mbokk yaa ngi fa mbokk yoo xam ne dañoo soxla yàlla te benn la nga leen yow ci bu mag laa ilaha illallah muhammadu rasulullah boo bëggee dem tukki jëmal bor boobu ma gis tamit ci archive yi ne 1944 Cheikh Ibrahim mi ngi bëggoon a tukki jamaat ba tey boor boobu dafa bëgg aji Makka bind tubaab bi ne leen dafa bëgg aji waaye gaawoo la bëgg a ñibbisee ba tey mi ngi bëgg a jaaraat Mali muy wax ne bëgg naa jaar seetaan seeti Sidi Ahmed Sukkerij tamit ci tukki mi bu dëppee màkk Sukkerij ba tey rek bàyyi waxagu ko dara sax mu ne waarit jugee ci ci làmmiñi Cheikh Ahmad Tidiane ne ko axir qudumaka ya aba isxaq yaa waaris sa sirri bil istixqaaqi axir qudumaka xatta tanjali xumamun yow abu isxaqa yéexalal sa ñëw bi ba njàqare gi ci xol yi dañ boobu ñu ngi jëm guerre mondiale ñu ngi ci biir guerre mondiale Sukayrij daan ko tontu boobu fekk na Baye bind lettre tubaab bi ne leen dafa bëgg a tukki ba gouverneur yi bind résident bi teewal France Maroc di ko ko wax waaye Sukayrij bind lettre waarit ñëwal ko ne ko bul dem nga gis ne ba tey kon ñaari waaj na ñaari yoon jëm boor bi waaye tukki mi fekk na boobu Baye dem Màkka kon ni ko imam waxee bind na rixla ba pare rixlal xijaaziye mooy rixlal ula ñaareel ba bind na rexla kanu mu doon dem kanu di seeti buur kanu kon bi mooy ñetteeli rexla bu bàyyi bind waaye boo fekk na mu dem màkka ci période boobu nga xam ne Sukayrij bind na ko lettre di ko bëggal ci Medina ci sanceg zaawiya gi njëkk muy dem màkka naan ko maqaamu Ibrahim wa man daxalahu kaana aminan bi hudaaw dafa dégg xaatif rabbaani Sukayrij muy wax ne zaawiya baay bi mooy makaamu Ibrahim saxuwaay Ibrahim ku fa dugg rek texe nga ngir njub ga fa nekk mm-hmm. boo xisaabee maqaamu Ibrahima wa man daxalawu kaana aminan bi hudaahu ci loxo bay laa ko gis mu xisaab ko dafay tolloog 1356 muy 1936 gi bàyyi tabax zaawiya bi. nga gis ne kon Sukeyri moom yàgg naa jokkoo ko bàyyi ci baatin yàlla moo leen boole daal. kon yàgg naa wàcc tukki Mali mi mu ngi départ guddi gi mujj ci tabaski 1366 mu tolloog 13 novembre 1947. mu tolloog wala yajal allahu lil ala al mu'minin sabila yàlla du may mukk yéefari yon ñu aksi ci kaw jullit ñi boo xisaabee 1366 lool la lay jox bay am ñaari wér ci tukki mi mi ngi ñibisi altine 12 janvier 1948 mu am fa ñaari wér bo hisabé admam ñibisi da fay dafay nasru min allah wa fathun qarib nimbalal yàlla ñewna ak ubbe gu jégué nga gis ne kon bàyyi lim ci am ci ay nattu ci at moomu yëpp yàlla defeel na ko ko soppil na ko ko muy ubbeekaay neq ma la nattu goo xam ne ci ronam neexmaa ca nekk moo tax góori yàlla yi toujours ñoom nattu yi dañ koy dañ koy muñ kon wax naa njëkk bàyyi di dem Guinée dem na kanu 45 seeti buur kanu nga xam ne taalibeem la mu dajeeg moom ca aj gu njëkk ga ñun ñëpp xam nañ la ca xew waaye njëkk loolu tamit am na ay mbir yu baree bëri yoo xam ne xew na ndax seigne Ousmane Ndiaye gañu na 1945 bay na non moy takkaay gi gi taral loosu jamono ñu ne déet alhaaj mohammed zainabou gañu ñeuk bay di départ alhaaj mo zainabou mom nga xamne bayen ko martial di wax ne lillahi ashraqa in turid tarikhahu wal umru yawmun yazdari bil asri mu ne lillahi ashraqa dafa fenk rek ñeal yàlla bo hisabe lillahi ashraqa daf lay jox at mi 1366 xamne ci la gañu mu ne wal umru yawmun dundam ba bés la dafa gaaw ba mel ni rek bés la ngir barke gum barke waaye boo xisaabee yow mun 56 56 ans la lay jox moom la alaaj moo seen bu dund sëñ Ousmane ma nga dund 39 ans bàyyi na na asaaba ardi yi waa bilun may munu dafa mel ni waame gu toog rek waame barke gu tuuru ci sama kaw suuf ci ci Sénégal noonu la dundam bi mel waaye dafa am léeb gum ca def boo calculer waabil 39 la lay jox mooy waame nga gis ne ponkal ku leen ñàkk te doo bàyyi rek mën ngaa rëng-rëngi waaye moom du rëng-rëng yi mukk ndax nee na latiifu yaa latiifu yaa latiifu sëkkin li ya sadmata laa axifu yow mi latiif yow kii ñëweti yow ki ñëweti yow dalalal ma choc bi dal ci sama kaw ndax man du ma caalit mukk moom du caalit loolu nag gannaaw loolu ci la fas tukki tukki nag ku ne xam na ne njëriñ gi ci nekk dafa bëri yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na saafiru tasixu tukki leen ndax ngeen wér kon tukki nit dana ci wéree ci maana comme ni muy wéree ci ci jëmm ndax activité la waaye tukki qit'atu min al azab doggit la ci mbugal tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nga xam ne kon am na coono yu ci nekk waaye coono yi yëpp njëriñ li fay na ko bàyyi nag yàgg naa tukki ne na daara biyal mawla wa ma daraytu muradahu innani raditu yàlla moo may wërale di ma windil xaw ma ci jublu waaye man lu def rek gërëm naa ko wax na feneen ne ah, آه، علم خالقي بأن سفري ما في حظ من حظوظ البشر ألقيت كل غرض عن دوري وجئت أشياخا صفوا عن كدري من يالا ميما بن رك موقام لمنا موتي ورغ ما يورلو ندخ من لب لو غور دي سوخلو من امنا كو نيك ماي نيك مباني روس تي ني ماي فيكي تاميت ني تي دون ساماي طالب تاغاتنا لين بن تاغوك اي نخ نخي ادنا كوم يالا لي مي ويندي لي موم رك كو خام وايي نا داغي غيس نا سي تيري بي صاح نيو اندي تونتو ndax ñi jot siwut ci bay ñep bay dox na ba ag ci ñom wala mu samp foko xamne dañ ci jaaree jup kon kay mom lim waxe ne inna khututi lil anami saadatun sama bind ñal na texe texe la ñal minde fi waye doxam tamit jeriñ la ñal ñal minde fi yep ko tax danaa doon sante yàlla julli ci yenant bi ci téré bi rek dafa commencé nan alhamdullilah mi ngi sante yàlla yàlla mi nga xamne mo wax ci alquran qul siru dox len ci kaw suuf ndigal loolu top motax mu jóg di dox yàlla wax na dox len ci kaw suuf nak ngeen gis mujj ñi doon togn dox len ci kaw suuf ndax ngeen gis ni ma tàmbalee soos mbindeef yi kon ndigal loolu moom lay roy waaye mu doon tukki ci période boo xam ne dëgg-dëgg ko xam seetlu dëgg da xam ne tukki jafe woon na de ndax bàyyi période bi mu doon tukku avion yi avion yi benn sécurité comme ni mu ko amee léegi Oustaz Barham Diop suñu bàyyi nee na maanaam Tidiane Ousmane nettali na ko tukki gu mu ànd ak bàyyi ci avion yu yàgg yooyu mu avion bi yëngatoo yëngatu ba nit ñi tiit na laa ilaaha illallaah laa ilaaha di oo yàlla bàyyi na leen teel na di kaay ma wax leen waxoon taalibeem ya te ko mun ne ñu appliqué ba ba gars yi bistaam yi appliqué loola géej ga dal moom it bi gaay yi appliqué loolu ah, avion ba dal te gis ne kon tukki jafe woon na bàyyi mu ne tukki dafa métti woon jamono jooju raglu ba lisaanu xaalam làmmiñu xaalam dafay wax ne ah, lëstu ubaali xiina uqtalu musliman ala ay chiqin kaana kaana fillaahi mabjaayi faalewu ma bu dee biñ may rey julit la nu ma daanoo baax na nga xam ne kon risque ci risque nga ci woon jamono juñ doon tukkee nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatullahi suma salaamu ataytuka barran suma baxran wa taaira yàlla yàlla julli ci sëlmal ci yow ñëwal naa la ci suuf ñëwee naa la ci géej ñëwee naa la ci avion wax na tamit ne bi barrin wa baxrin xat baastu madaaixi wa dal yowma ashdu fi lhawa mutajamjima yónnee naa la samay tagg ci suuf ak ci jaar ci bato yi tey nag maa ngi ci kaw jaww ji di naaw waaye ngi mun muni ba rek di la kon yoon bu nekk ba tukki di jafe sax yoon wu nekk jaar na ca jëm ci soppam ba yoon bu nekk jaar na ca tasaare njub waaye bi muy dem Conakry tukki ma li mu gën a danger ak na mu méttee ni Guinée bëree montagne te yoonu suuf la jaar nga xam ne kon njëkk avion yi di am bam naan taqaadafawul ajwaahu sharqan wa maghriban yubinul huda fi'lan wa qaala wa jaala avion yaa ngi may xëccoo bu ma sànni beneen jël ma may tasaare njub ci sama wax ci sama xaal njëkk avion yi di am it mi ngi ci oto yi te ci loolu rek la nekkoon oto la jël jëm Guinée auto la jël mu jëlé ko Medina mu ag Dakar jël avion ci goudi ga jëm Conakry waye la da ci tukki mi yëpp oto la nga gis ne avion la jël dem te goudi la dem mu melni kuy rañan khul siiru la tàmbale yàlla mo dox len ci kaw suuf rañan len tukki goudi moy rañan mom dafa dox di rañan di roy soppeem ba waxoon nañu feulé ci kilini yu arriquni dhikra surahu suraahu bi makkatin waqad kittu asri aw saraytu kadaliki saraytu bi ruuxi aqtafi jisma ahmadin fa tamma liqaaun bayna dayni hunaaliki mu ne maa ngi toog di fàttaliku rañaan ak yonent bi sallallahu ba ma mel ni damay rañaan far sax rañaan naa mu ne sama roxo rañaan dajeeg jëmm yonent bi sallallahu seen dajee mat sëkk nga gis ne moom rañaanam roxo may dem rek ànd ak jëmm yonent bi sallallahu dem roxo jëmm nag duñ tàqaloo waaye bi muy tukki tamit pour war na ne tukki mi lim lim làmboo bëri na daf ne xat jaa iznun fi siyaahati faha anni asiru aqtafi dabin nuha dama jox ndigal ci dof siyaha siyaha moy tourisme xamna tourisme religieux lay wax waye waaye yanke yi siyaha dafa bok ci sen bir dafa bok min adati rijal ndax Sidi Abdou Qadir Jilani bi mi dénk domam Abdou razzaq daf ko dénk ñent mbir ne am ak tumu fexeel ba am tumuranke ak yonentu yàlla yusufa fexel ba am faqroog yonentu yàlla Muhammad manam yàlla rek moy sa kom koom wo dara lumay yàlla na nga fexe ba am tabe yonentu yàlla ibrahim fexel ba am ngërëm ak ishaqa fexeel ba am muñ ak yenentu yàlla ayuba fexeel ba am junjëk zakariya ga fexeel ba am toroxluk yaxyaa ga mi naan sol mbubu leen ya waaye fexeel ba am siyaaxa ak yenentu yàlla isa maanaam di dox ci kaw suuf kon si ci siyaaxa la bàyyi ne mu ne qad jaa isnun fi siyaahati faha anni asiru aqtafi dawinnuha kon dox la ci kaw suuf marche physique la waaye dafa am ànd ak marche spirituelle dafay dox ci kaw suuf di egg ay oto di wàcc waaye mi ngi dox tamit ci maqaama yi mi ngi dox ci xaal bu soppeeku beneen xaal ñëw ndax waxoon na fële ne لي كل وقت حالة بعد حالة وحالة مدح المصطفى خير حالاتي وقت روم رك جنك بروم رك بنن حال بو بس نيونا واي حال بي سما حالي نك موي حال ديغا خامني مانكو دي دي جي دي تاغي ينتبي صلى الله عليه وسلم دي دي ساكو غيرمم توكي دا فا بري يوتي ني ندخ باي نيو تشدل باي كبير فاي سيدنا ني غور لا غور دغ ني كوي خامي تي كون داناي فينال اي جيكو داناي اي باخ دانن تي خامي كو باخ واي دانن تي نيو باخ danañ ci dajeeg ñu soxla njëriñ ñu jëriñ leen boo demee ci téere bu ñuy wax kitaabul isfaar fii nataayijil asfaar ibn al arabi al xaatimi moo ko bind danga gis mi ngi wax ci njëriñ yi tukki lu bëree bëri bàyyi woy def ci téere bi maanaam wesarut bi njëkkee bind rixla muy rixla xijaaziyal ula daf ko bindoon ci wesar maanaam prose la bi bindee euh, tazkiratu man kaanu tukki kanuma mu jox xaritam bu ñuy wax Muhammad euh, Muxtaarul Hamdun bàyyi lam tënkoon ci prose kooku way ba mu demee ba ci biir bàyyi àggali la ca des nga gis ne boobu it la ñetteel bii tamit mu def ko way lu tax su fiyaan kii dañoo bëgg way ndax way mën nga cee nëbbu ay code yoo xam ne ku naanut du xam li ngay wax ku naanut xam li ngay wax moo tax mu leen gënal wax ju wax ju direct nii rek nga xam ne ku ko xool setantal ko ba pare euh, way tukki la ibnu arabi mu ne langage bi ñu utilisé ci poème poésie arabe yëpp baati tukki la baxra mooy maître bi ñuy woyee géej la baxra mooy géej sabab mu ne mooy voyelles yi Euh, euh, silaab yi takkalante baat yi mooy sabab te sabab mooy corde yi ñuy takkee gaal watat mu ne mooy pilier gaal pilier yi ci ne keno yi ci ne te watat moom mooy composition euh, bayti bi corde sabab la ak watat nga gis ne langage yi ci yi ci gaal ak ci tukki sax moom mujj nekk ci woy ci arab kon way tukki la koo xam ne daf la yóbbu ci dans un monde des sens ci monde aalam boo xam ne aalamu naa la waaye comme mi ngi tukki ci physique tamit ci ci li feeñ mi ngi tukki ci maanaa tamit moo tax woy ci boppam woy ci boppam beneen tukki la waaye li ma doon wax ne rañaan la bàyyi dafay rañaan ndax ne na ba muy départ rek raafaqani min kawlax al aminu fa huwa aminullahi la aminu ba may départ ci kawlax rek la ma jibril gunge alayhi salaam te mooy ki yàlla óolu man de naruma lu ma wax rek dëgg la ba muy départ jibril la ko gunge niru na rañaan lool jibril nag mën nañ ñoo waxtaan ba tey taxaw ci moom ndax malaaka nit mën nako gis waye nit zahir rek ne nañ malaka nit mën nako gis bu amé melokan doomu adama ndax ummu salamata soxna yaron sallallahu alayhi wasallam sallam jibril ñëwal na yaron bi sallallahu alayhi wasallam te mom kim gis mi ngi jël melo ben sahaba bu ñu wax jihya al Kalbi bi bi mu démé yaron bi nako lu xam nga lu fi xewon jibril mo ñewon mu ne man de kima gis jihya al Kalbi la jibril mo jël melokanam ci lañ waxé ne kon nit za nit yi nit mën na gis malaaka bu amee melo doomu aadama ndax malaaka leer gee leer gee bëri ba bëti nit bu ko gisee te amul kiraay du baax ci moom waaye góor yàlla yi ñëw wax nañu lu ëpp loolu ndax am na ci kenn taali taalibi bàyyi ku ñu wax Cerno Yaxyaali wax nañ ne gis na Jibril ci jumaay Medina ji foofu noonu ndax moom ku ne xam ne dafa selloon lool ci xalwa rek la nekkoon ci dundam maanaam bari na ñuy dox ñoo xam ne nii daanaka duñ ay nit mm. ku àgg foofu yow wettali ko malaka du yema ci yow ci yow rawati na sen serigne bi nak ki Cheikh ibrahim radiyallahu anhu mune bima bi déparé rek Jibril moma gunge koku moy ki yàlla óolu man nak naruma sosuma de luma wax rek luma wax rek deug la wa min Dakar hina tirtuja khairul wara wa batini ada mune ci Dakar bama ma déparé rek le gën ji mindef ñëw ànd ak man leral sama batine bam mu amna lu gëna a sax ndax sangi Jibril ñewna nee na ci Dakar ba may départ ci guddi ga rek mu mel ni roxo ga daje nag jëmm ja ba tey bi sallallahu alayhi wasallam ci la teew leeral sama baatin nga gis ne lan lay wane période bi période la bu métti ci bàyyi ak ci taalibe yi ndax période politique la di élection législative ci AOF ñuy fal ay ay ay député bàyyi ku ne gis na ni meloon ak Lamine loolu indiloon na ko nooneel ci partisan sangor yi bañ sonal lool taalibe yi dem nañ sax ñu ne ba découper Medina. bolé ko ci sin sin salum la nekatul salum ñu génne ko bolé ko ci circonscription bu sin xam nga loolu rek la ma ngi gis ci archive coloniale yi ñuy wax ay taalibe bay yu ne ci lagem dóor yu leen fa doon nu leen sonalé ak ñu nekk kaolax gis naa ci sax ay tribunal ay ay procès yoo xam ne defal nañ ko ay taalibe te loolu yëpp ci xex yi la bokkoon waaye yàlla dafa doy waar bàyyi nga wax ci rexlaam ne ca gaana ne wasdaxamu wa sakiru min xubbi man jaahum wa shukru daali rabbi دبت حمية خبرة الولاية في تلك الأعجام بالعناية سبحانه يخص من شاء بما شاء وقد قهر أرضا وسماء قد أوذي النبي في البطحاء وود في المدينة الغراء من لك كدي تجانا نعى بب جبل سمن يوم يب ممني توكي ولاية سكر ولاية دفع داو تنيوم موتا نيو داو بب جبل سمن من ما يتدو لك برم بيغا قمني مو يجاقل صوب لوكو صوب yàlla mi nga xam ne moo not asamaan ba daanut ci suñ kaw moo not suuf ba rëngi-rëngi wut mu ne yenentu bi de lor nañ ko ca batxaa ca màkka ba génne ko waaye sopp nañ ko tàpp ko nit ñi bëgg ko ci seen xol ca Medina Munawara maanaam Kawlax géem a dëkk de am nañ fa coono yu bari ak nooneel gu mat waaye fii ci ay ajam rek wër ma ay làkkat wër ma bëgg nañ ma ba fu ma dem duñ bëgg ma jógee fa da nga gis ci biir tukki mi yëpp heure bu tàggooyee dëkk bu mu dem bëgg a ñu ne ko déedéet doo dem fanaanal mu ne di wax xiil ak xaal ay gi luppeen pour bu ma dem gis ne li mu waxoon ne lor na yenent bi ca Makka ñu sopp ko lool ci Medina ba bëggatuñoo tàggoog moom loolu dëgg-dëgg dal na ko bàyyi ngi wax ne suusu yi ca Guinée dañoo bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg borom xam-xam moo tax seen suuf si naat waaye utee nañu ko waa Kawlax xanantu naxwa Kawlaxin is kulluhum lam yabahu bil ulama is julluhum lam yabahu bil ulama bal kulluha xanantu naxwa Kawlaxin is kulluha is julluha lam yabahu bil ulama bal kulluha ndax lu ëpp ci ñoom faaluñ borom xam-xam yi nag la siyama hada alxaqir uljaani walaw bada xalifatu tijaani rawatina jaam bu xeebu bii nag donte feeñ na ne moom mooy xalifa Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu waaye nag li ñuy dalal bu bàyyi waxoon loolu rek te tekkiwu ko mën naa am ñu tiit ba ba gëlëm waaye daf ne lu may nag ñu ñu spécial ci biir ñu spécial mooy ñi nga xam ne naan nañ ci sama mbóot ñooñu moom dëgg-dëgg bokk ci ñi nga xam ne réeree nañ sama mbir wala tuutal nañ borom xam-xam wala réeree nañ ma man mi nga xam ne mi ngi tuddee boppam jaam bu xeebu bi nga gis ne ni mu toroxloo loolu yëpp da ko gis ci biir way bi manam humilité Cheikh Ibrahim ni mu wàccee boppam loolu da koy gis ci ci ci biir téré bi Cheikh Ibrahim téléphone sax degna bu ko oté man la ibrahim Niass lettre bu ko bindalé bopam ibrahim Niass Cheikh ak dàkkantali ak tur yu bari yi nga xamné ne Babacar Thiam gis nako mune limal nañ ci bàyyi lu ma téeméer ak ñent tour yeb ta soppé ko ko tuddee waaye moom bu waxé ci bopam ibrahim lay bind jàmbu xebi bi lay bopam al haqir jàmbu doyé bi wala al jani jàmbu mëna togn boromam bi noonu lay ooyee boppam waaye nag ku xam kuy jaam lu ko yàlla taggee ba ne ko da gaaral naa sumay suma xilaafa nit ak jinne ak montagne yi ñu bañ yow nga nangu ko ndax dangaa réer mën a tooñ mu mel ni kuy kuy xaste dafay tagg lu tax mu réer parce que réer mooy réer ci jëmmi yàlla ji fa la réer yem lu tax mu mën a tooñ mu ne ku àbbu melokaani jàmbur kay yaa ngi tooñ tooñ mi ngi yem ci nga jël melokaani jàmbur lii niru xas loolu dafa mujj sax nekk tàgg danañ waxtaan ci biir ci xilaafa Cheikh Ibrahim bu ñu àggee ci li mu wax ci ay mayam ci pays yéen sallallahu alayhi wax naa rek ci njëlbeen ne rapport gis nañ rapport 1947 am na ku ko bind ci politicien sénégalais jarul ñuy tudd turam rapport Baye nan français yi jug leen ci moom waaw violence politique yi am yëpp taalibe mi ci lay jugee kii da ngeen war ut pexe ci moom lu nekk wax na ko te 47 kon xam na moom li xew kon buy wax naan faaloñ borom xam-xam ak coono yiñ ñu teg taalibi meeg yiñ ko teg da ngay xam ne moom li muy wax dafa am fondement dafa am fondement bu légitime waxu rek di sànni moom xam na sax lu ñu wanewut rawatina nag bi nga xamee ne nooneel wala mbañeel fésal nañ ko ba mu gis ko kon pour wax ci plan yi plan yi waxtaan bi rek danañ wax dëkk yi nga xam ne Baye dem na fa ci biir Guinée ndax bi mu jógee Medina guddi dem Dakar jël avion wàcc Conakry bi mu demee Conakry euh, dem na Kindia dem Fouta Djalon dem Dalaba dem Tinka dem Timbo dem Dabola dem piita dem Kouroussa dem Kankan Kankan dem na fa ay yoon dem Saria dem Biskirima dem Kindia Maamu Koya Fodé Kiria Dalaba Famouria Balabala dëkk yi yëpp bàyyi wër na ko bi ma toppee carte Guinée bi damaa gis ne dem na ci noor bi ci kaw dem ci nord est dem ci centre bi dem ci ouest bi waaye demul ci suuf maanaam Baye daanaka wër na Guinée yëpp ba mu def suuf si nord bi moo frontière rek Mali da gis ne Guinée am na frontière rek Sierra Leone moo tax Baye mën naa jàll dem Sierra Leone bu baax waaye bi tukki mi jeexee tukki mi daf ko tuddee nafaxaatul malikul xani bi siyaati fii ba ma wa Guinée waaye da nga gis ne amut rek Mali ak Guinée waaye dem na Sierra Leone dem na sax Gambie loolu yu bëri wuñ ko jaar na sax Gambie ci tukki bi doog a dëppaat euh, dem Conakry jàll ñëw jaar Sénégal oriental ak si ak ak kaw la waaye environnement yi eh, Guinée bi sax Baye daf koy tuddaale ci way da gis mu lay tuddal jaww ju neex ja ca ja ca Tinka di la waxal fleuve Joliba nga xam ne continuité fleuve Niger la Baye di la ko décrire ni muy daweeg ni muy ñëwee nga gis ne boo weesoo baatin bi ci texte bi sax rafetaay bi beauté littéraire bi daf lay wan dëgg dëgg li oustaz di wax ne il professeur mm-hmm. amul rek ci nekk boroom xam-xam waaye dafa xóotu ci xam ndax moom xam-xami zahir rek baatin yëpp la la boole ni mu ko waxee ci biir way bi ne dafa am xam-xam dafa wër xam-xam ba dajeeg jëmmi xam-xam wante dafa am ndigal ci joxe xam-xam boobu dafa boole xam-xami mos ak expertise mos na waaye expertise gi mu am moo tax mu mën a mosal ñeneen loolu loolu yëpp dafay feeñ ci tukki bi kon dem na Sierra Leone jaar na Gambie jaar bu gaaw ñu dem ci fond yi texte bi yan principe la ci bàyyi waxtaanee Baye daf ñuy wax ne moom mi ngi tàmbali métier am oote jëm ci yàlla ba am génne àdduna loolu la wax ci interview bu mu def 1971 ak ci interview bu mu def 68 ak professeur Abdoul Karim bu journal Al Bilad ca Makkatal Mukarrama mu ne ko métier mi oote jëm ci yàlla ba sama baay faatoo laa ko tàmbali ndax suma baay daf doon cheikhul islam ci jamonoom leeral diine tasaare ko tuubal dugal mbooloo yu bëri ci l'islam ba mu gaañoo question la posé sama bopp kan mooy ubbee defal fatwa ñi nga xam ne xoo na xoo na leen ci njub mi nii ku leen di jàngal ak ku leen ubbee ci xam-xam booba nag laa tàmbale loolu ba ci 1971 mu ne am naa 50 ans de carrière ci oote jëm ci yàlla te nag léegi yomb na waaye ba ma koy tàmbali jafewoon na lool ndax dégg ngañ ci ziara mu ne téere bi gën a ndaw sax ci lax laxdar yu tolloon na jamono boo xam ne amu ko toppal kenn may jàngale may toppal nga gis ne kon oote jëm ci yàlla métier moom la doxal ci biir tukki mi waaye mooy métier gum doon ci ay baayam ak ay maamam bi baayam génne àdduna la dem Koosi samp fa daara di jàngale alquran di jàngale xam-xam gis naa rek texte boo xam ne 1925 25 26 ma ngay jàngal ñoom maam Serigne mbay ñoom Baye Ibra faal ñoom Baye Moussa jóob ak ñaari doomi ibrahim yi nga xam ne mi ngi leen di tudd mi ngi leen di tudd ci biir téere bi. Euh, nga gis ne boobu la commencé jàngale xam-xam bu leen di testé ne leen damaa bëgg altine bu jot ngeen bind benn texte ci araab jox ma ko ma corrigé mi ngi bind maqaama bi mu leen yónnee daf ko bind ci forme maqaamaatul xariir yi. man dama gis dama gis texte bi waaye ci bind Baye Mour Seyni Ngabaan Seydi Hadj dana ko xam bu baax mu na mi ngi ko toxalee ci bindi baay comme ma bindi baay mi ma yónnee ko al oustaz al marjia oustaz bi nga xam ne mooy suñu référence oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ba mu ko xoolee rek la dama lii ba baay la tigi ku ko xool xam ne wax baay la oustaz daf ma ko firil sax ci vidéo Moustapha filmé ko yónnee ma ko keroog maa ngi koy maa ngi koy wax wax imam waaye texte boobu ma ngi cey wax naan maa ngi leen nuyu uhayyikum ahlal madarisi jumlatan la siyama sunuy abi bakril xarmi wa wa najlay abi bakrin maa ngi nuyu waa daara ji rawatina sama doomi baay sang bi aboubacar sëriñ mbay ñas radiallahu anhu mu ne ak ñaari doomi ñaari doomi aboubacar yi ak Moussa Diop ak Baye Ibra Fall sama soppe bi Ibrahim sama soppe bi kon ñaari doomi Ibra ñaari doomi Aboubacar yooyu man dañ maa yéem ba léegi xaw ma ñooy ñan waaye xam naa ne daal yàgg nañoo ak Baye ndax booba faydu tàkkagul sax ña nga mu leen di jàng ña nga foofu mu leen di jàngal waaye dana leen tudd fii ci rexla bi buy tudd mag ñi kon bàyyi booba la tàmbali di jàngale di joxe xam-xam itteem rek mooy jubal jaam yi màng leen ñu ñu ñu jëm ci yàlla kon bu ñuy gëstu fond yi texte bi dañuy wax ne Cheikh Ibrahim est un prosélyte attitré un réformateur au succès éclatant ootekat jëm ci yàlla bu am ndigal wa daa'iyan ilallaahi bi idnihi wa siraajan muniran ba nga ba ba mu ooyee mbindeef yi ci ndigal rek ci la ci la nekk di lamp bu leer nañ mën leen na leeralal seen biir rek seen biti kon ndigal daf ci am njëriñ waaye universalité message yi bàyyi maanaam daj gi mu daj àddina tukki daf ciy bokk pour mu daj àddina tukkee koy dimbale da ngay gis ne bàyyi ngi ñaan ci biir rixla bi daawatu rabbi an yaum hadiyi kullal wara wa yaxmaduna saayi بذاته bi daatihi al aliya wa bi yaqdi xawaaiji wa yulini l madad wa yasluka al aalama bi nahja rachad mu ne maa ngi ñaan yàlla borom bi mu matale sama njub mbindeef yëpp te mbindeef yëpp sant sant sama dox sama dox na ko mbindeef yëpp sant mu ne maa ngi ñaan yàlla ci jëmmam ju màgg ja ak ci meloom yu meloo jëmm ju taaru ja mu faj samay xaajo te yool mag tëbb te mu sóob àddina bi yëpp ci man yoonu njub oustaz bi muy firi mu ne lii xut bu rekk ñemee ñaan ñaan gi yàlla na yàlla sóob àddina yëpp yoonu njub te mu jaaree ci man loolu mooy wane ne message yi Cheikh Ibrahim dafa war a wër àdduna te loolu lii mi ngi ko wax 47 la mu waxoon ca njëlbeen it lettre ba mu bind Xasan Jaan ci Jawaahir Rasaa'il ñun ñëpp gis nañ ko daf ne ko al faydatu taumul afaq fayda bi dana wër àddina bi yëpp bi idnillah loxo mënu koo téye kenn mënu cee teree dem nit ñi ku ko bëgg a dawloo nit ñi nit ñi yow la ñuy daw yow nag sama taalibe bàyyi nga moo tax maa ngi lay laaya biir di la wax loolu waaye bi faydu bi nekkee ak waame daj àdduna yëpp xam nañ ne li Baye waxoon lu ñu mës a wax dëgg la waaye lii tamit yàlla dëggal na ko keroog àjjuma rek maag Cheikh Moustapha ña nga fële ca Norvège benn waa Burundi ñëw foofu ne dafa bëgga a tarbiye Norvège nga xam ne dañuy wax ne bu àdduna bi doon kër mooy plafond bi dem ba foofu am courant dafa bëgg a xam yàlla kon bu Baye waxee ne faydu bi dana wër àddina ñun dëgg-dëgg jamono dëggal na ko kenn mënu ko weddi teg nañ ci suñu bët wëram bindam xalimbaam ak doxam yëpp li ko tax a jóg mooy jubal jaam yi وحنا فلا تي رحلة آه، تذكرة من كانوا فلا أنال راحة في قلبي وفي البسيطة يعاصي ربي ثم قال دو فيك موك فيك أمن نيو موي يالا جيكو سوف كون كوكو دو نوبولو موتا داود نوبولو وعي نيو نيو دو نوبولو وخونا دوام الحاج عبد الله نكو جنل باتب راحة باتب نفلاي تي سديكشنري دوندو باتب نفلاي جنكو تي سديكشنري دوندو موتا أستاذ دفعي وحنا سوسان ترالي ني توكي توكي ور بشين léeg mu ne bàyyi ma duñ toog tuuti noppalu moom mii ndaw sax mu ne bàyyi ne ko baraam nañ dem rek tukki tukkee koy jeexal mhm. kon nga xam ne moom du sonn ci jubal jaami du sonn ci doxloo ci loo xam ne maslaay lislaam la waaye yàlla nag bu la tànnee daf lay tànnal te daf lay yombalal mbir yi moom mu ne xawaaniyal mën naa ne fil asfaari yàlla moo ma dëgëral ci tukki ba du ma am so du ma am coono soxlawu ma sax di dog ci tukki ndax man yëguma coono tukki bi ku mel noonu nag wax dëgg yàlla mbir mi dafa yomb ci moom yàlla mi ko nammu ci ëzal mu ne muraadun li xamli sirri min qabli nashati yàlla mooma nammu ci ëzal may nameelam nameelam may ki nga xam ne moom la nammu ci ma xenu mbóot mi waaw ma nekk murabbin li kullil aarifina ma nekk di jubal képp ko xam ne yaa ngi xam yàlla maa la ba yaa ngi bëgg xam yàlla yóbbu la ba ne la yaa ngi nii sa borom a ngi nii waaye résultat yi doxam jëm ci yàlla feeñ na ci tukki mi ni mu feeñee ci yeneen tukki yi da gis ba mu njëkkee jaar akara naan لكن أنكرا إلى تكورادي ما بلغتهم دعوة من نادي أكرا فتكورادي تي غانا دا فا ملني هوتي كات موسى فيجار لندم نا تروب نينجي تيادوغو ما تسك واي بام فا ليغي باي فا اي جيخيتلام بام جاراتي دا فني أنكرا في هذه تغيرا أنكرا دي تي يون وي موم سوبيكونا بام فا جارا جاراتي دا فني وجيت بعد أنكرا وإني يومي بأنكرا تقدا حزني فني موم سما جاكاري داجنا تي أنكرا ndax ay soppe ma fa nekk ay muqaddamam la fa samp ba léegi ciif imaam yi gaana ci ilif diine l'islam ci gaana yëpp maanaam Ousmane ba bàyyi di dajeeg mag ñi ñu tuddee woon yaati yaati moo ci gënoon a dox doxale fi ne mooy xalifa bàyyi ci gaana te mooy imaam bi nga xam ne président Amérique sax bu fay ñëw mooy teewal diine foofu lu mu di xew ci diine l'islam moo koy jiite kon akara googu nag moom dëgg-dëgg bàyyi soppi na ko mooy wane ne kon moom mbootam jërmalut te liggéeyam yëngatoom am na njëriñ gaana googu تجاهي تلمنا جاءوا إلى الدخول في الطريقة فوجا وفوجا أسلموا حق أسلموا الحقيقة نيونا في الطريقة بي جار تمن أي كوري كوري جبلو تدق دق كن دخم ينغتوم دونت نم من نقم لكو يالا دي ويندلي نين من نيو تونت نيون قم نيو يالا دي دي ويندلي موي جبل جامي رك اك نيو خول كو تخي فري تاون بام فا دامي تي بيرتو كيمي ميغي واخ ñu réer lañ ardu fisqin wa ardu jahlin lam daraw bil xaqi moom gën ak topp bëri na fa réer bëri na fa daanaka daal ñi ci ëpp xamuñ dëgg sax waaye nga gis liggéeyam rek taxu koo yokkat jubal na fa ay nit joxe fa wirdu tijaan maye fa ay lijaasa ba liggéeyam feeñ fa feeñ boo xam ne nii ëpp na ëpp na sax dem na ëpp na dayoo gis naa lettre rek bu ko oustaz bind moom bàyyi 4 juin 1973 Oustaz ko bind ci en tête Paramount Hotel hôtel Paramount ci Freetown pour war la rek jeexital yi wàcc ga fa bàyyi wàccoon Oustaz moo fa def conférence ci salle théâtre national sur xaqiqatul iman la réalité de la foi ci la def conférence bi mu bind bàyyi di ko ko nettali ni ko conférence bi réussite totale la amoon pour wax la rek la kon Freetown moom bàyyi ba mu fay dem ma nga lëndëm lool waaye tukkeem leeral na ko ba doomam secrétaire mën faa dem wutu ko fa def fa conférence sur la réalité de la foi xaqiqatul iman mu am réussite bu mat seuk mi ngi wax baye ci lettre bobu nan ko buma yegone sax jaar Mali jël ci téré bayan wa tabiin nuskha yu bari tassaré ko ndax yow sa ité moy nashrul khair tassaré yu wa da'wa ila al-haqq ya alam al huda fi asrina tasaare yiw oote jëm ci deug yow mi nga xamné yaay drapeau yu ñub ci suñu jamono ji non la non la melalee bàyyi waaye tasaare njub googu noonu taqaadafawul ajwaahu sharqan wa maghriban yubinul huda فعلا وقال وجالا افيون يدي كو خيو مون استاك او اس افيون بوكو واتي مو جيل بنين ليم تي جيبلو ريك موي تسارا نجوب نجوب موم دغ دغ تسارا نا تي لوخوم واي تيري بي باي داف تي واني موي مجدد القرن لا ريفورماتور دو لا دو دو سيكل لا ريفورماتور دو لا ريليجيون يونتي مون تيمري ات بو نيك سن بروم دا نالن ابلال كولن بيسالل سن ديني يونتي صلى الله عليه وسلم موكو باي واخ تي بوبام ني ا قصدي ixya sunnatil amini uxyi tariqal qawmi lil quruni sama mébét mooy dekkal sunnaay ki yàlla óolul dundal yoonu góor ñi yoonu tasawuf pour les siècles à venir mu dund dund goo xam ne yi ñëw yëpp danañ ci jëriñu kon kooku xam ne mooy mu jëddidu diin ne nag xasir yi nashru diini is atuufu sama jubluwaay bi bi may wër mooy tasaare diine sama tawaaf gi wër bu bëri yëpp tasaare diine laa ci jublu wax na tamit ci biir téere bi ne alamanil yowman diraasu sunna maaxi dalaali qaidi lil janna am naa métti loolu bu ma gisee sin sunna mel ni luy bëgg a raaf sunnaay kan maaxi dalaali kii kii far ji kéefër qaidi lil janna kii xam ne moom mooy xommat ma xommat leen ñu jëm aljanna kooku mooy kan mooy yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tasaare diine yëkkati drapeau l'islam moo yàgg moo tax a jug bàyyi wax na ko fii 47 mais boo demee ci 1954 at gi mu jugee woon ci bato bi ànd ak waa AOF tey siggil fa Sénégal ba ñuy jub Algérie ajuma jot mu taxaw xutba ajuma ci bato ba jiite pèlerin yépp bañ àggee Màkka gis buur ba tëleen Baye moo fexe bañ gis ko loolu commandant Fall du talibé Baye moo jiite aj yi mooy premier musulman bu ñu tànn mu jiite aj parce que euh, bu ñu jëlaan tubaab mu jiite commissaire au pèlerinage jidda la daan dem du mën a àgg ci les liens saints bi ko defee joxee julit julit nag liñ ci jublu rek mooy mën a mën a àgg ci Màkka ak Medina gën a mën a bàyyi xel la fa xew daanaka ku leen espionnel lañ bëgg waaye moom moo bind commandant Fane maa ngi amee rapport ba di wax ne Baye moo def ittee ak ci xam-xam xam guñ ko xam ci xaramayni chérifé ni xam guñ ko xam ci Makka ak Medina moo fexe bañ gis buur bi Baye moo bind discours bañ fa jàng kon kooku yàgg naa yëkkati lislaam waaye yàgg naa yëkkati tamit yàgg naa yëkkati tamit Sénégal da ngay gis ci aj googu noonu biñ dëppee ba jaar Casablanca ñu tànn ci ñoom mbooloo juróom-ñetti nit yóbbu leen pour ñu dajeek ministre de la France d'outre-mer ca Paris ci ci la bindee xasidaam bu rafet boobu malal qalba xubbul haashimi walam anam bi baarisa xawli raaqiduna walam ulam mu ne sama mbëggeeli haashimi bi mu yentu yàlla muhammad lem na sama xol bi maa ngi pari ñi ñu wër ña ngay feccee ko topp seen bànneexi bakkan man mënumaa nalaw muy wax ne yóbbu nañu palais Versailles ñu visité ko la palais bay rafet rafet drapeau ba di folote château ba la mag mag man taari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek rek laay gis waaw fal alwaanu wa raqsu wal ghina tuzakiru arbab al basairi bil qusam feu de lumière yi jeu de lumière yi tàkk musique bi jolli ba kenn mënta nelaw lépp rek man taari yonent bi sallallahu alayhi wasallam fàttali man gëlëm loo na ma ba taari àddina bi mënumaa mënu mënumaa këf waaye ci biir xasida bu rafet boobu rek bàyyi ngi wax naan falaw taxmilul ayaamu mal abdu xaamilun la azlamatil arjaau bi danbi wa dulam mu ne li ma xeenu ci bàkkaar ak tooñ de bu ñu ko yenoon xal wàll yi ñu lëndëm ngir bàkkaar ak tooñ foofu ba tey mi ngi fay juñu maxaama xilaafa gi nga xam ne moom la ñu waxee woon zaluman jahulan yàlla mu ne dama denk sama xilaafa nit yeeg Guinée yeeg montagne yi ñu bañ ne àttanuñ ko doomu aadama moom ne ñeme na ko ndax dafa mën a tooñ dafa réer ndax li muy xalifa yàlla ci kaw suuf mooy xalifa yàlla ci kaw suuf yàlla di la xool Seydi yi ne mi ngi wax bàyyi ne ko yàlla bu bëggee xool jaam yow lay xool di juñu ma xaama boobu kon kay tooñ yeeg yëpp yow dafa mel ni yaa ko res rek yaa enu yëpp moom lay wax ne li ma enu ci tooñ ak bàkkaar bu ñu ko enoon àll yi àll yëpp lëndëm فهمنا فيا ربي فاغفر لي والتهدي فؤاد من يحب الذي احببته مصطفى الامم والتهدي به اجناس خلقك وارفعا به رايه الاسلام والتكسير السلام يا يلا نك ما جيغال نخدا ما بغ كيغا بغ موي مصطفى الامم كيغا تان سي بير خيت ييب مون نك ما جوبال تيغا جيغال ما ندخ ماي سوبي كيغا سوب وايا سي مان نغا جوبالي خيت ميندي فيغا بيندي ييب نان جوبي سي مان تي سي مان نغا يكهتي درابو الاسلام te ci man na nga mab kërëm kon mab kërëm tassare njub bessel diine mo taxaju bay wayé nak gannaaw buñ amé haqiqa muy li gëna jafe Cheikh mam serigne Bay doon na wax ne téré bo mën di jàng bu jawar maay lu nga xeb borom loolu bay mo ñu mom mi ñu formé buñ mëna dégg wax ju jógee ci pays yàlla ba kok mom lañ ko wara gërëmé waye comme am nañ li gëna jafe muy haqiqa dañu wara fexe nak ñu fàggu xam-xamu zahir mom la bay di wax al yawma matlabi lahum ulumu zahiratun tasḥabuha fuhumu اليوم matlabi lahum ulumu zahiratun tasxabuha fuhumu sama mébét léegi nag mooy taalibe yi nag sàkku fàkku xam-xam yi zahir goo xam ne dafay ànd ak dégg ndax ñu mën a bokk ci ci ci jamono ji doon wax ne jamono ji ba muy ebal suñu nijaay yi ñuy jàngi jamono diplôme la góorgóor leen ci diplôme yi xëccoo ay métier ngeen jëriñ l'islam jëriñ seen société jëriñ Afrique jëriñ àddina yëpp échelle des priorités boobu la leen bàyyi tëralal njëkkee l'islam na ngeen jëriñ l'islam jëriñ seen réew na xubul watan min al iman jëriñ Afrique جيرج أدينا يب بيجسنا بشيخ باي شيخ باي رضي الله عنه مساج باي ودارا ده جاي جسنا بيمجي كينديا جم كوناكري كوناكري في مني ترانزيت جارنا فلو مات نيتيون وارنا فواري بري بري يو خمنا ده دفعي دوغو تبير ميشيون مرك من وحضروا بالشخص والجناني لمن يقودهم إلى الجناني وحضروا بالشخص والجناني لمن يقودهم إلى الجناني يوم تاونا ànd ak seen i jëm ak seen i xol ñeel man mi nga xam ne maa leen di xommat ñu jëm aljanna mu ne tax mu wax ne moom moo leen di xommat ñu jëm aljanna ndax mu ne waxi borom xam-xam la boo xam ne kojug yàlla la ñu dëgëralee ko sunna si yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kay kooku ku déglu waxam aljanna nga jëm ndax yenentu bi moo ne yéen ñëpp aljanna ngeen jëm ba des ku bañ ñu ne ko kan mooy bañ dem aljanna mu ne ku ma topp yaa bëgg a dem aljanna ku ma bañ a topp yaa bañ a dem kon Cheikh Ibrahim comme waxi bàyyi lay fàttale waxi yenentu lay fàttale sunnaam lay jàngale ku jaar ci yoon wi mu la tracé ci saraatal mustaqim nga tegu ndax mooy yéen yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na aquudu li diini wali zimaamu maa darrana xaarisun aw hammaamu moom dafay xommate moom Cheikh Ibrahim li diini ñu jëm ci diine dafay ommat mi def ñu jëm ci diine wali te ñeel na ma zimaamun nos am na nos bu mu xamee diñu ci xommat di napp roxo yi pour yóbbu leen ci pays yàlla ba wax na ko ca wayam ne kenn kenn du gis ku ma gën a sopp mbindeef yi ku ma leen gën a yërëm ndax wal umatu qasdi fihimu an asuqahum ila xadratil barri rahimi ilahna sama mébét ci xeet yéntu yàlla muhammad mooy xommat leen ñu jëm ci pays yàlla ba nga xam ne mooy ku baax ki te mooy kii aji ñëweti mu ne aqudu li diini wala zimaamu ma naa xaarisun aw humaamu mu ne lori Jean wala Paul sàmba wala bàcci seeni lor du agsi ci ñun man damay oote jëm ci yàlla te noska laa amee noska gi moy lan mooy alquran ak sunna ak ndigal lu jugee ci boromam bi ci gindi jaam ndax bi muy wax ootekat yi jëm ci yàlla ma nga tàmbalee ci noddukat nee na ootekat jëm ci yàlla la mi ngi tam mi ngi ca teg borom xam-xam boo xam ne xam na lu daggan nag lu xaram waaye ma ngi ca teg ku am xam-xam ba pare am ndigal ci pays yàlla bi pour oo jaam yooyu yëpp daje na ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaye ne ci biir tukki mi bëri na xutba yu mu ciy def bëri na waare yoo xam ne def na ko ci du sonn mukk nee na ba ma àggee Timbo def naa fa xutba ci seen digg penc ma ba ma demee kurusaa góor ñe feeñ nañ fa ñu baax teew nañ wax wax yu rafet ci man ma nit waar naa leen waastuhum walam oqasir waar naa leen te yokkatuma damaa guddal lool bàyyiwuma benn détail fu mu ca waaree rek da nga gis ne dañuy jooyee jooy ba bëgg dee waaye ci xoyof gu mu xoyof da gis mu ne waar naa leen ñuy jooy man mënumaa jooy waaye xanaa xeer bu mënta dagg war a mën a daas mënumaa dagg naam xam naa waaye war naa mën a daas nag paaka bam ñëw léeg nga gis mu ne waar naa leen ñuy jooy man mënumaa jooy xanaa sama bakkaar yee ma teree mën a jooy waaye loolu yëpp daf lay wax torox kum toroxlu rek daf lay wan toroxlu gum toroxlu ak wàccee gum wàcce boppam ku wàcce boppam ngir yàlla yàlla yëkkati ko loolu la ñu yonent bi sallallahu jàngal bëri na lijaase yoo xam ne joxe na ko ci biir tukki bi ak ñum ci may wirda bëri na ci loolu loolu rek jaroon na jóg dangay gis mu naan la raaytu cheikhana tijaani saara yaqulu aatuni bi ndongo saara ndongo saar benn kilifa xaadir la ñëw di ko ñaan wirda bàyyi wax ko dara bu di jot mu tëdd rek cheikh tijaani ñëw ne ko ndongo moom kër indil ma ko indil ma ko dugalal ko ci tariqa bi waaye maa ngi gëstu di xalaat lu nit di ko ñaan wirdu mu war a bañ mais xalaat li ma yaakaar ne mën naa bokk ci cause yi parce que ci bir tariqa qadiriyya bi nga xamne ci la nongo sar nekkon mi ngi jokk ci ñom Cheikh Saad bu Cheikh mohammed Fadel Cheikh Mal Aynani ñooñu seen kilifa dan dañ bole boole qadir ak wirdu tidiane man na am bàyyi loolu la doon bañ nongo def ko ndax Cheikh Mal Aynani mom dafa ne fa gis yéenantu bi moko jox ndigal ci tariqa tidiane Cheikh Mal Aynani nak amul sikk ne mom ci walu yàlla yi bokk ndax góor la lol ci yàlla mag ñi nangul nañ ko danaka Maroc ge mo fa doon jàmmaarloog français yi ba tax mënu not Maroc tëwoon len lol muy wàllu yàlla bu mag mu ne yënantu borom këcc fu la moo ko jox ndigal ci ba tax uyuwu a xam la boo xam ne mën la mm-hmm. waaye terewut cheikhu tijaan moom ba bàyyi tëddee rek la ñëw mu ne raaytu cheikh ana tijaani saara yaqulu atuni bi ndongo sara cheikh tiyani ñëw na feeñu ma ne ma ndongo sar mi kat indil mako bay jox ko wirde dal di koy jox lijaasa ci sasi momit mu jëbal bay léppam ba jël domam jox ko bay yobale ko wax kon tukki bi bay liggéeyal na ci tariqa ci samp ay keno ci bir free town bo fa deme joxe na fa lijaasa jox na fa ñu bari lijaasa jox na fa ñu bari tamit wirdu tijaan waaye ci biir téere bi danañ fi gis ay don ay mawaahib ay may yoo xam ne yàlla may na ko bàyyi te bàyyi waxtaanee ko waxtaanee na ko fi may yooyu rek jaroon na jug tukki di nga fi gis ay xaal yoo xam ne dund na ko fa xaal yooyu ñun dana danañu jëriñ dana yokk suñ mbëggeel ndax xam-xam dafay yokk mbëggeel te boo xamee li waa ji am fi yàlla dëgg danga gën a góorgóorlu ci bëgg ko ndax nga mën def tataful ndax nga mën a xaaraan mu mu sedd la su ma yaay Cheikh Tidiane Serigne Mbaye papaay Khalil Baye moo daan wax ne Baye loo dégg muy ñaan boo yeboo daw boo yéexee tuuti fekk mu toog di ko jóor di ko maye lu muy ñaan rek pour ñun la waaw Cheikhaani nee na amul benn maqaama ci biir maqaam yi lu may bàyyi dana fa dana fa yëgal taalibeem waxu daa na fa de dana fa yëgal taalibeem beneen naar ne bul waxati ne barxaama bu la nel gone nel gonek bàyyi xutbu goneem la loolu yëpp pour wan la ne li Cheikhaan yi wax ne amul benn maqaama ci maqaama yi rek lu may bàyyi am na ca cër amul benn maqaama ci maqaama yi lu may am na fa cër te dana dana ci yéegal ay taalibeem la ma waxoon oustaz ci zahir dafay feeñ ci baatin yar nit te bëggoo mu màgg mu ne tubaab ba français rek ko koy def man ku ma yar bëgg naa sax nga am lu ma amut ndax boo defee lu mu defut moom dafa gis ne moo ko def nga gis ni déggam mel oustaz mooy dañ ne ko dañoo bëgg nga jàngale ci kaaba gi fii joxe fi xam-xam mu gàntal bi mu ñëwee ne bàyyi li tax ma gàntal mooy gisaguma nga def ko foofu bàyyi ne ko da ngaa waroon def boo ko defee da ngaa waroon xam ne maa ko def boo ko defoon da xam ne man maa ko def waaw parce que ko xam ne nee na la maa ngi lay ñaanal nga dem ba boo waxee ñu ne moom de barxaama la kon boo waxee foofu maa fa wax ndax koo xam ne maa la jël ci juróomi at def ci yow alquran def ci yow xam-xam ne la da nga dem ba yàlla notal la xalimbee kayit yi ba boo waxee ñu ne maa wax boo waxoon foofu da nga jàpp ne maa wax waaye moom it gis nga teggin yi teggin rek teggin moo ëpp njëriñ sax moo ëpp njëriñ lépp ci taalibe waaw teggin moo ko may li mu am yëpp nga gis ne kon tukki mi bëri na xaal yu fi bàyyi di junj ay maqaama yoo xam ne yegg yegg na ko fi ak lijaaba gu bari gu fi yàlla may ndax mi ngi wax ne ujiba daawati la daa konakiri kama xamaani llahu an manakiri sama ñaan nangoo nañ ko ca konakiri ni ma yàlla xaatee musal ma ci lépp loo xam ne euh, lu luñ sibla ak lu ñuy sikk yàlla may na ko fa lijaaba ndax dafa tumuranke te ñaan ak ku dañ koy nangu waaye nag bàyyi bu wéetee ak bu wéttalikoo ñooyam ci moom yàlla rek lay wéttaloo lay wéttalikoo ndax ndax mi ngi naan ana seni rabbi da daa kindiya yàlla wéttale na ma ci kindiya ba yàlla moo koy wéttale bu wéttalikoo tamit yàlla moo koy wéttale ana seni rabbi la daa kindiya wadia sirrahul aminu indiya ki ñu mu yentu salaa salaam ci kindiya denk na ma fa mbóotam xanaa mbóot mu spécial la mm-hmm. mu ne yàlla defal na ma fa tëjal lii ca Fuuta Jalon mu ne bi fuuta jëllaa xat tajalla jëlla wa azza mawlana wa shaki jëlla ci fuuta jëllaa yàlla defal na ma tëjëlli ah sama dut sama sikki yëpp dem na tëjëlli yi nag ni ko sufiyankee di melale ñu ne dafa mel ni mooy fenk ak leer yi jant jëmm ja ci seetub aarif fenk ab leer yi jant jëmm ji ci seetub aarif muy manifestation bi spéciale boo xam ne Cheikh Ibrahima yi wax ne yàlla may na ko foofu noonu sikkam yëpp dem nag ndax yaqin nag bu ñëwee isaamal yaqiinu laazama qalban jaanabatu shukuku wala awhaam wala cheikhaan yi wax yaqin nag mu ne bu takkoo ab xol óolu bu takkoo takkoo ab xol rek sikki yi ak gëléem yëpp dañuy dem yàlla may na ko tëjal lii boo xam ne am na ci yaqin gu wér waaye ci biir téere bi danga gis lu bàyyi di wax xab doog bastu àgg naa place sàngam sama xol bi fasu ma am xabdu dem naa place sàngam am bastu sama xol bi tàllaloo loolu yëpp ci langage sufiyanke yi la bokk ci ci ni ñuy waxee la bokk waaye ñoom buñ koy firi booy dem ci risaalal Qushayriya wala nga dem ci xikam euh, bu Ibn Ataillah Sekandari ñoom ñëpp dañuy wax ne xaw foog rajaaw ni mel ci ku sóobu te àggagut maanaam di yaakaar ak tiit ku soobu ca lay ne maxjuub bi ci loolu la ne yaakaar yërmande yàlla am la mu tiit lool ne maa duñ ma duma xaw foog rajaaw ci ñaar yooyu nga nekk boo demee nag ba nekk aarif yow romb nga étape boobu noonu nga dem ci xabdoog bastu léeg-léeg nga fasu léeg nga tàllalu hmm. mune ne nak mo lay yob ba nga ag ci xëy ak uns lele nga nga majesté yàlla magayam gi nga gëlëm ci lool lele nga am uns nga wételi ko yàlla lool nga gis ne manam xab doog bastu bi dafa melni ni évoluer rek xaw foog rajaaw tàmbale won mu mujj mu nek xab doog bastu fay dem ba nek uns ak xëybatu kon waxi sufi yanke la da ngay gis nan bàyyi nan bima ñewé ñëwee dabola waqa ali bastun bu al qabdi wa kullu fi'li khaliqi bi murdi bi ma ñëwee dabola am naa fa ab xubbeeku ak bastu goo xam ne gannaaw bu ma nekkoon ci xabdu waaye man lépp lu suma yàlla mi ma bind def rek man gërëm naa ko moom dafa gërëm te loolu mooy jàmm bu jeex ci yàlla noonu lay mel da nga si Abdul Karim ji moom lay junju naan uraani kal alaati wa huwa muharriki ana qalamun wal iqtidaaru asaabiu mu ne man eh, dama mel ni rek ay jumtukaay yoo xam ne dañ may yëngal mu ne man damaa mel ni xalimba goo xam ne baaraam yi dogal yàlla yi ñoo ma amee rek nuñ ma windeelee rek ma jëm moom la bàyyi di wax ne lu lu lu aji bind ji dogal rek man gërëm naa ko foofu nag dëgg-dëgg euh, may la gu rëy rëy ku fa yegg dangay gis naam du xàmme jalaal ak jamaal gis moo naan euh, yàlla mooy jëlil jëlil mooy jamaal moo tax lu mu def rek jamaal la mm-hmm. mooy ku màgg ki moo tax bu defee indee feeñuwaay bu weex sax loolu dafa dafay neex ci ñun dafay rafet ci ñun waaye nga gis teggin gi am ci ñaan teggini ñaan googu nag mu ngi ko donnee ci ku mu doon muy yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee Taayif ñu boole ko ak seen dofee ak seen xajee di ko sànni xeer ñaan gu daw yaram gam ñaanoon yow yàlla maa ngi lay jàmbatal sama néew doole moo tax danga may xiir ay noon ñu may doye dal ak di ma weddi wax li ci xolam yépp ci njàqare ak métit waaye ne ànd ak lii yëpp nag boo ma merewul rek baax na nga gis teggin bi mu nekkee moom la bàyyi di wax ne yow mi jëlil yow mi màgg loo def rek lu rafet na waaye danga maa tànnal jamaal ba maa ngi ñaan rek nga may ma jamaal maanaam ñaan gi sax dafay ànd ak teggin goo xam ne doo xarab mukk te doo doo contesté mukk décision yàlla loolu mooy Cheikh Ibrahim mu ne bi mu ñëwee tam xarit mu def ko ba ma ko xabdu ba ñëwaat والقبض عاد لي هناك أيضا يا ربي يا رحمن يا رب يا رحمن زدنا فيضا يو يا الله يو يو بروم بيو اجي يرمجي دولي ما فايدو دولي ما اك بب غيسنا فاي قبضوك بسط بي نيوات في تي تي تي باماكو واي تي بير تيري بي باي نيو وني موم تي خيوالي بروم نيكون دي ندابي نداب لو يا يالا داف سي بروم بي داف سي سوتي ay mayam rek sottil na ko fa lu bari mu ne xaw naa yàlla tudd ko ca turam mu mag wa taqarruban jaamu ko rek laa ci jublu ma ci benn soxla ñu sotti ma ay leer ba mel ni sama euh, def ka defu xol gi def naan xat nii doy na mahlan ruwaay dan xat malata bat nii doy na nag doy na inaf feesal nga sama biir luñ ko soxla mu ne ay awaarif ak ay maarif ay xam-xam ak ay ay ay mbóot waaw ay mbóot la ko sol ak ay xam-xam ba mu fees dell loolu yëpp ci tukki mi la loolu jaroon na doog ay manding wax na ne ci jikko yi nga xam ne tamit gis nañ ko ci bàyyi di ko wane ci yoon wi ak ci téere bi bokk na ci di sàmm kóllëre ndax bi muy dem Freetown mu ne maa ngi fa bëgg a jëli suma doomi mbokk muy euh, El Hadj Ousseynou Niass di doomi suma mag abu Aboubacar Aboubacarul Awal mooy ci Cheikh bakar الاول دون الي مال امام الاجي دومم دي ماك شيخ ابراهيم باي ديكو فونك كو با ديكو اوي محل والدي سما بربي باي يا مي خول سما سما بتي باي مو جيل دومم ييب شيخ عثمان شيخ حسن شيخ حسين محمد ابراهيم ييب جيبل لن باي باي فونكو مبوكو با امنا بن نيانكم ديف تودي كو واردات الحرب مو نيوخ مي فاي واخ اللهم الحق بالابناء ابناء اخي يلا يلا ايغل ci sama doom yi sama doomi mbokk yi doomam lañ gaa comme doomi mbokkam lañ waaye na éegal mbóot mi mu def ci doom yi na éegal doomi mbokkam yi ci mbóot moom mu mel ni moom moo leen jur ci boppam loolu damay wax ne adoption plénière moom mhm. tubaab xam nañ ko ci droit waaye bàyyi ci ci baatin moom bàyyi ko appliqué allahuma alxaq bil abna abna axi mhm. yàlla nga éegal ci sama doomi ndigg yi sama doomi mbokk yi muy kan alaaji Ousseynou alaaji Ousmane pa Hassan Khadi pa Mouhamad Zeynabou ak ku muy wax Ibrahim man xawmako ma man xamna ne man am dafa jitu ñek ñuy gëna jamono waye mu ne dafa bok ci sama nature sama nature tabi riayatul wasiyati ajal dafa bok ci sama nature may sam ko lere man kaana yensa saa ma aqal kuy fàtte ko lere yow yow dal amo xel seen bay moo ma leen dénk te man sama nature la may sam ko lere nga gis ne makarimul akhlaq jiko yu kawe yeb rek yo xamne ne la yàlla tagi yéen sallallahu alayhi wasallam mom moom roy na ko ci sang ba ba jiko yu yeb nekk ci moom ndax yonent bi dañuy wax ne dafa amoon kóllëre ba ñim daan gis jamono ñuy set si Xadija soxnaam même gannaaw bu Xadija génnee àdduna sax bu ñëwee ci moom da nga koy xam mu ne kii Xadija Xadija Xadija la woon fonk leen loolu mooy sàmm kóllëre gi nga xam ne ci jikko yu kawe yi la bokk torox lu gu bàyyi toroxlu wax nañ ko alxaqir lay awee boppam aljaan yi tooñkat bi ku xeebu ki suma bakkaar yee bari moo tax nit ñi di jooy mënumaa jooy hmm. ah kii ñiy déglu ñoom ñi ngi jëriñu te wax moom mënta jëriñu ah waaye xanaa pa xanaa xeer moom dëgg-dëgg bu mënta dagg it war a mën a mën a daas loolu yëpp day wane humilité toroxlu gi nga xam ne ak wàcce boppam gi nga xam ne mi ngi ci moom waaye zuhdoom dëddugum dëddu àddina dafa feeñ ci Cheikh Ibrahim hmm. mi ngi wax ci biir taal bi naan nafsul muluki xaalatul miskini yi lakini ashku li man yushkini hmm. man de dama amee bakkani buur boo ma gisee teg ma président teg ma ku ku mag fekk man xaalab miskin la amee te loolu ni zahir gi matee ni baatin gi matee noonu la zahir gi matee dégg naa ba muy doxantu Chine ca parc ba di ko visité ba julli jot ay kàmba la simmi rek lal ko taxaw ci kabar chinois waaye dañoo tiit sax lu ay kaba rafet rafet ñemee na koo soppi sa jaada. kon wàcce gi mu wàcce boppam daf cee feeñ sàmm gi mu sàmm kóllëre dafay feeñ ci téere bi waaye nuur gi mu nuur ci jaamu yàlla dafa feeñ bu baax ci téere bi jafe na nga liir lu mat juróom benn bayti te doo dégg mu naan maa ngi xoo yàlla ci turam sàngam rawatina latif nag Latif moom téere bi yëpp ci la bàyyi nekk di ko tudd di ko ñaan yëweti di ko ñaan yërmandeem di ko ñaan di ko ñaan ci tudd yàlla la nekk ci téere bi yëpp ñu gis na zikr nag julli sax li tax mu mat mooy fàttaliku yàlla gi ci ne te yàlla nee na wala zikrullahi akbar tudd yàlla fàttaliku ko moo gën a màgg boo demee ci xaatimatu tasawuf bu Sidi Mouhamed Yadaali dafay wax ne góor yàlla yi nee yoon yi gën gaaw ci dugal jàmm bi ci pay yàlla bi yoon bi ci gën gaaw mooy tudd yàlla ndax tur du tàggoog ki koy xuyoo ki tudd yàlla du dañ di tudd yàlla kiiraay yi di dagg chey an fa chey an ba mu àgg ci shuhudu alqalbi teewlu goo xam ne woroomi xol la mu ne bu boobaa nag dana doy lu walis tudd gi ndax àgg na ci kim doon tudd ibnu arabi xaatim moom lay wax naan njëkk ñu may huññil muuraay gi dama doon tudd yaakaar ne man maa doo ci tudd gi dara waaye bi mu demee ba kiiraay gi dañ laa xam ne maay kii tudd maay maay maay tudd gi zununul basri yi daf doon wax ne mandargaay aarif mooy lan mu ne ñett yi la leeri maarifa leeri maarifaam leeri xam yàllaam du far mukk leeru fegoom fegu gi mu fegu ba du du def lu bon du moy mu ne xam dégg gim dégg baatin du tax mukk muy uuteeg attee zahir yi waaye bëri gu xéewal yàlla yi bari ci moom tamit du tax mukk muy xotti xormaay yàlla yi mu ne ñetti mandarga yooyu mooy mandarga arif moo tax bàyyi mi cheikhu taifa di saydul arifina moo ñu dàq julli moo ñu dàq woor ba du dox sax du dox sax ci tukki te mënoon na ko bu ñëbee fay dàq ñoo naa fi la oustaz mu ne li ko yëm ci bàyyi mooy la muy def ci privé ba mu wéetee bu fu ñëpp nekkee it moom lay def lim la digle loolu lay def yàgg na koo digal mbir ne ko jàpp ci kat ci laa ne de kon moom ci lim ne loolu lay digle bëri na lum tudd yàlla ci biir tukki mi jaamu yàlla wéetal ko surtout ci latif tudd yàlla ci turam wu mag wa waaye li ma gën a yéem ñaan gi gën a yéeme mooy ñaan gi mu tëjee juróom benn bayti la yaakaar naa yaa rabbi bi zaati wa fi sifaati fakun lana fi saayiril xaalaati yaakaar naa ñu bëri ci ñun miin nañ ko mu ñaan koo xam ne dafa làmbo lépp lu nit war a ñaan mu ngi wax na yow borom bi nga xam ne yaay borom maa ngi jottaliku ci sa jëmm ji ak ci sa melo yi nga nekk ñaal ñaal ñu daf ko maas noonu boole ci moo soppee topp mi yëpp na nga nekk ñaal ñu ci xaal yëpp ci situation bu ñu mën di ne yow yàlla na nekk ñaal ñu waaye mu ne bu ma gis naa ne dama ñaan yiw yàlla gis ne dana jeex ma soxlawaat na ma ko waxee woon ci ziyaara ba yàlla ñu yàlla may yàlla فكون لنا في زائر الحالات نيانم يب دفا تنكو سي لولو بو امي يالا نياكو دارا موم لا واخ يا دي جوتالي سي جيم جاك ميلو دي نيان يالا مو ديس نيال نيو سي حال بو مندي نيك ثبت قلوبنا على الايمان والتهدنا لعمل الاحسان غا ساخال سوني خول سي نغم يالا تي نغا جوبال نيو سي جيفي الاحسان nga gis ne loxo yi ji cër sax ci jaamu yàlla xol bi nekk ci xaqu ruuxu gi nuur ci xaqiqa mm-hmm. سد لنا مبيري بباري مو جف جف إحسان سبيت قلوبنا على الإيمان والتهدينا لعمل الإحسان من نجا قول جمع تشيون وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي دينا نجا قول جمع تشيون ت نجا دعير لنا نجا دعير لنا الدين جي نجا لنا نجا دعير الدين جي دين الإسلام نجا جوخل نيسني حق تنجا فاير نيسني بور ما نام جوخل نيكم قوام ندين تي منا فاير بيب حق بقام نعمل نكون نيا بيب بور بقام نعمل نكون وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة نعم يو جبر قو خمد دنا نعم نجبل تي الله يو أم توحيد بسال يو جام ويا الله تدين كبوكالة يو يو سخ نكل يالله تنغا فاي كيف بكو خمد دفن لباخ دفن لما لباخ يو يالله نعم كفاي فاي جعنا رفت وجاز عني كل من كل من قد أحسن إلي من رب الجزاء الأحسن نعم فاي كو سالير بنا خمد مو جعنا رفت مو جعنا مات مجتلو كتير صلى الله عليه وسلم يقابني مو أجر موجي keroog bés a fang ba ki nga xam ne mooy gën ji mi nga xam ne moom la suñu borom may Kawsar muy ñaan yàlla mu julli ci yenn bi te mu bëbbal ñu yiw woo xam ne dafay matale bayti yi Seyda Roqaya suñu waajur bu jigéen ne na wulu nax wi wula nax wi ki nga xam ne mooy waa Mauritanie bi njëkk jàpp ci baay ndax moom dafa daan ñëw kër maam alaaji foofu di laaj addiya bu ñëwee ñu ne baay nekk baay lay dal bàyyi koy attaaya moo koy xidma comme euh, shérif lañ من ذا الذي ما فاقت وبلغ الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه يريد محمد البشر لا أهميتي السلام عليكم من شيخ الله خيرا بل هو كالياقوت بين الحجر